ci euh, day xaw a doy waar ndax euh, lu dul naan geek euh, fóot geek ñoomin seen ak sangu gi hmm. waaw dafay doon loo xam ne daal lu mënta ñàkk la li mu mën a toppatoo dafa bari ah, lool lool lool warul di ñàkk warul di ñàkk alors dinañu waxtaane loolu ci kanam tuuti waaye li ñuy jiital mooy mbirum Guy Marius Sagna mhm. ah, moom yàggul dara dalal nañ ko fi waxtaane woon lu bari ci mhm. wàllu activiste bi nga xam ne ci la nekk mhm. tey combat bee ngi wëy ndax moom day bëgg Sénégal à chaque bu ñu nekkee xëy na ci jafe-jafe wala ñu dégg naka su dul noonu moom mu taxaw contesté mhm. euh, bi ci mujjee euh, doxante bi mu doon amal boori pale mhm. euh, ba mujjee yoon teg ko ci loxo mhm. dafa mel ni fanaan na rëbës démb waaw démb fanaan nañu rëbës ni nga ko waxee Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppandool moom ci li nga xam ne moom lañ doon def ajuma ji ñu weesu bi ñu leen tegee loxo ci buntu palais de la république ngir li nga xam ne lañ doon naqarlu mooy ñu ne Euh, yokkuteeg njëgu courant gi nga xam ne tàmbali na ci weeru décembre gi ñoom dañu cee àndul mënuñu ko wannaasu ba tax ñu ne loolee daal ñoom mënuñu caa ànd ba tax ñu doon amal doxum ñaxtu boo xam ne dañ leen koo aaye woon nag ndax euh, ñi nga xam ne moo di préfet da leen koo aaye woon ba tax ñoom dañu ko bëggee defee foo xam ne euh, di arrêté bi ñu naan arrêté Ousmane Ngom moom moo aaye woon ñuy defee lépp lu nga xam ne doxum ñaxtu rek toogaanu ñaxtu ci lépp loo jëm nekk wetu place de l'indépendance jëm bolu palais palais de la république ñoom nag ñu ne loolee du ca ànd ndax constitution bi dafa maye ne képp ko euh, am lu la naqari euh, bëgg def toogaanu ñaxtu wala doxub ñaxtu am nga droit euh, am nga sañ-sañ nga def ko te yoon mënu ci dara loolu charte réew mi nday charte réew mi constitution moo ko maye ñoom nag ñu ne loolee du ñu ànd ba tax ñu egg ba pale loo xam ne daanaka bëriwul bu dee yo am na ñi nga xam ne jot na nañoo egg daanaka mën nañ ne guléet am kuy mës a am def exploit boobu noonu la ko sax ñin ñi jàppee woon Euh, ba egg fi nga xam ne moom mooy euh, palais de la république ñu teg leen loxo euh, démb nag ba ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo di doyen des juges ñu def leen li nga xam ne moom moo di mandat de dépôt yóbbu leen ci rëbës ñu fanaani fa laataa nag ñuy ubbi ab information judiciaire ci seen i mbir fàttali ne daanaka ñu bëri ci ñoom juróom-ñett ci ñoom dañoo dem fële dañ leen yóbbu rëbës kenn rek lañ ci bàyyeek ndëgëniku mu njibbi këram muy Souleymane Jim mu doon mbir moo xam ne daal Euh, jamono ji euh, moo jur coow daanaka xëy xëtu yéenekaay yëpp moom la ñu xëyee euh, ni ki tey fan yëpp tamit ñu ngi ci xëyee woon di wax mbirum Guy Marius Sagna ak ña ñu tegandoog loxo ci moom ci biir mouvement aar bokk. atiam looloo waral tey dinañ ko waxtaanee un peu ñoom nag à chaque fois ni ma ko waxee ñaxtu bi benn la dañuy bëgg bu réew mi nekkee xëy na ci ay jafe-jafe ñoom ñu taxawu ko moom may fàttaliwaat ni jóg bi ñu jógoon li ko waral mooy. Mhm. yokkute courant soxla nañu tamit assistance hein soxla nañu ku leen ku leen ku leen soutenir. Mm-hmm. jappalé len ndax euh, combat la bo xamné euh, xeyna ñom rek la won ñi ngi ak Kumba Ba également ci jotaay bi Kumba ginaaw ma la nuyoo le temps de revenir euh, su suñu invité ci téléphone bi dinañ andalé léegi ak Alioune Sané mom mi ngi bok ci mouvement yanamar momit marre moom it di activiste bokk ci ñi nga xamné bu combat jógee dañuy taxaw Kumba nuyu nañ la naka suba ci suba saa ngi nii Kalz. maa ngi lay fay nuyu na auditeur ak internautes yi nga xamné ñom ñoy suivre King FM. di jéggalu ci retard bi nag ndax démb naan li dañoo jaar sama kaw. jël sama téléphone ndànk sama biir sax. moo taxoon daal ma xëy. Hmm? dem ca gendarmerie ngir xool ndax mën nañ cee def dara. li ñu def dara baax. <laughs> looloo war a mere naa leen lool <laughs> mais bon munu cee ñàkk loolu ci ci insécurité bi nga xam ne ne nemmeeku nañ ci réew mi euh, ci la bokk dinañ jël soit ak yow ci loolu di ma saw bu baax ndax loolu lu metti la wax dëgg yàlla di la di la ñi ngi ak Alioune Sané moom Y en a bi ma fàttaliwaat waxtaan bi ci suba si euh, mbirum Guy Marius Sagna la ñuy waxtaanee. Mhm. ak euh, ñaxtu boobu nga xam ne jógoon na pour def ko euh, yoon mujjee ko teg loxo Alioune Sané ñu ngi lay nuyu ci King FM ñaam mbégte ànd ak yow. maa ngi leen di fay bu baax a baax waay Kal bi maa ngi ak bi muy Pape Ma Diakhaté ak Koumba Ba waxtaan bi benn la déjà naka nga jàngatee situation bu monsieur Guy Marius Sagna ak loxo bi ñu ko tegaat yoon teg ko loxo ba mu mujjee fanaani rëbës biig Euh, jërëjëf euh, premier jàngat bi ma ci am euh, mooy jàngat bi ci sénégalais yi la plupart am mhm. mooy arrestation Guy Marius Sagna ak dix-huit autres concitoyens sénégalais yi nga xamante ni dañu amaloon marche pacifique comme ni leen ko constitution bi maye ñu def lépp li war en guise de lettre d'information pour que préfet yi ñu encadré ko ñu amal marche boobu de façon pacifique pour dem devant le palais Eh, pour eh, ñaxtu loolu foofu ne leen ni yokkutewu prix électricité bi sénégalais yi nanguñ ko peuple bi nangu ko ndax électricité bi dafa cher ba pare buñ ci naree yokkaat day doon li nga xamante ni dina metti torop donc eh, ñu def marche pacifique boobu noonu gis nañu gis nañu li ci xew ñu pamti pamtee leen jàpp leen yóbbu leen commissariat ñuy baagante entre commissariat ak tribunal ba gis ngeen démb Euh, mettre nañ leen sous mandat dépôt ñi ci ëpp ñu ngi bës kenn rek lañu ci bàyyi mu am liberté provisoire mu doon nag euh, kumba am ndey kumba amul ndey tey jii nii c'est le sentiment qui est le mieux partagé par le sénégalais ndax gis nañ fi Kals ci ay jamono en deux mille 2017 mu am ay gàngooru jeunes yi nga xamante ni ay militants wu APR lañu ñuy ay souteneuru Aliou Sall euh, dem ca buntu palais de la République ca grille Il faut protester ndax intérêt unit, nit c'est-à-dire Alioune salle, euh, investiruñ ko ci listu député yi pour mu dem assemblée nationale ñoo ñoo ëppoon ñi fa nekkoon ci marche ñoom Guy Marius Sagna mu am ay échauffourée ba mu am grenade lacrymogène yu ñu fa sànni ñooñu dañu dañu leen bàyyi ñu ñibbi seeni kër et que tey jii ni boo xoolee ñoom Marius pour une cause bi nga xamante du seen intérêt ñoom du intérêt wu kenn waaye intérêt wu peuple bi le peuple bi di joy, mom lañu jël ñu à travers le slogan de ño bang, ño bañ ño lank ñu téye len tay ñu ngi ci prison bi donc mhm. c'est le sentiment le mieux partagé moy sentiment wu kumba am ndey kumba amul ndey lax doom dóor doom mhm. Mhm. alors Ibrahima waaw kumba Ibrahima Kumba Ba mo nekk ci kàddu gi Aliou Sané Aliou Sané Aliou oui waaw Kumba Ba ci mais dañu seetlu Aline dernièrement sortie yi nga xam ne moom am ci ñaxtu France Dégage ñoom a fës la mais engouement population bi am combat ñu de des années lan waral pour yow. Euh, soxna euh, gis nga France Dégage am particularité en tant que mouvement citoyen bi nga ay activistes mm. dans leur stratégie ñoom nombre du seen problème ñoom dañu jàpp ni cinq personnes yu yu yu déterminé mun nañu mun nañu dox mun nañu protester ñu déclencher jaay ci jaay seen bopp euh, def ay sacrifices parfois même au prix de leur sang à travers des manifestations pacifiques bu ñu leen jàppee euh, mu doon action coup d'éclat bi nga xamante ni dina dina yee ñu doon nelaw ou bien de déclencher un processus bi nga sénégalais ils peuvent se dire ah mais écoutez quoi il y a quelque chose qui se passe il faut que nous mobilisions wu il faut que nous jóg loolu bokk na ci ay action wu qui nous tout à France dégage mm. mais qui mobilisation au sénégalais globalement je pense qu'il ne faut pas avoir cette lecture là bi nga euh, quand même c'est assez réducteur parce que da il y a qu'au aar li ñu qui ci ay manifestation il y a juste quelques mois voire quelques semaines. à mhm. euh, du centenaire mais c'était noir de monde ay sénégalais ñoo fa nekkoon du à ay guinéens. Mhm. Mhm. gis nga balaa ñoo yegg ci 2011 ñuy wax 23 juin et toutes les mobilisations qu'il y a eu soxna si. Mm, euh, journaliste journalistes, interview. ñu interviewé ku mel les man di sénégalais ils sont passifs, les Sénégalais. L'Union Tegrec Tagana, c'est un peuple qui accepte tout, qui avale tout. L'on l'a moi mais peuple sénégalais, c'est vrai, peuple faut du peuple qui a encaissé le c'est un peuple qui pacifique loolu ñëpp xam nañ ko day encaissé di encaissé. maanaam du ñu jóg ci ba mu waree. à chaque fois du loolu sax. mais dafa di mm. peuple buy encaissé peuple buy muñ di muñ di encaissé bu demee ba sës nag c'est un peuple qui sait se rebiffer taxaw ne doy na. Mm-hmm. gis nañ ko fi en mille 2011 2012 loolu kenn xaaru ko. ndax jàpp nga ne loolu jege na. loolu noonu ci loolu la ñu nekk gis nga ci processus boobu lañ nekk incha allah te gis nga injustice bii di am au delà de prix yokk prix électricité nit ñi bañ ko. nanguwuñ ko ba pare ñu jàpp ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi bokk ci peuple bi di ko xeex di ko joytu ñu jàpp leen ne leen ràpp ci kaso bi hmm. alors te amoon na ñeneen ñu faroon ci ñoom ñu def li ëpp loolu amuñu autorisation amuñu dara ay grenade lacrymogène mu jëpp ci griwu pale yi kenn waxu dara ñu ngi ci seen kër yi nekk ci seen i amphi di jàng tey jii nii ñu jàpp ñi nga xamante ni euh, euh, euh, combat wu peuple bi en tout cas li peuple bi di jooytoo dans les maisons et un peu partout loolu lañ porté ñu bëgg dem manifester pacifiquement ñu tëj leen gis nga mm-hmm. injustice yu mel noonu mm-hmm. dafa am benn bouillonnement bi nga xamante ni xaw ma ndax yéen a ngi koy sentir exactement journaliste yi lu ci bëri depuis démb barki démb liñ may wax mooy peuple bi jugul peuple bi jugul moi mm-hmm. je dis non je dis non. il mhm. y a un bouillonnement qui se passe je sais pas ndax Macky Sall ak ñi mu àndal ñu ngi koy percevoir ou pas. Mm. parce que démb rek maa ngi ci benn plateau. j'étais avec un économiste un docteur xawma lan ils sont dans l'attelage en tout cas ñu ngi ci ci ak yooyu. Mhm. mais waa ji bu waxee tu te demandes kii ban Sénégal la ne. Mhm. Lui-même, il a demandé à un moment, né, né, né, Baba Babacar, le chroniqueur de, de, de, de, de, de cette télé-là, hmm. mais, mais est-ce que mon Sénégal, je vais un Bobo Gendewa Il a comme, il y a Sénégal, hmm. Donc il y a un bouillonnement qui se passe. Et mon message, je hmm. quand même, moi, c'est bien beau de dire, Guy Marius Sanya, Djadjef, Djadjef, big up, big up, big up. Oui, Guy Daykhek, Daykhekal Askanwi, oui, Tchak, les députés du peuple, l'eau, c'est bien beau. Mais à un moment, ces gens-là, vous ah, avez actuellement, humain, ils nous posent. Mm-hmm. Comme le Marius Sagna, vous êtes un rec. dinañ ko néewal doole dinañ ko téye kaso lu yàgg. Mhm. et pourtant borom kër la. Mhm. am na jabar am na doom am na liggéey. alors juste mhm. yow justement euh, bo ci ci ci mbirum Guy Marius Sagna ak ni ñu teg loxo euh, ak ni ñu seen seen nombre ni nga xam ne noonu la toll mais surtout également seen représentant bu ñu gisee Guy Marius Sagna ñu gis ci euh, docteur Babacar Diop bu FDS doon ñoo xam ne daanaka ci dox yi nga xam ne wala manifestation yi nga xam ne aar li ñu bokk da daan def daanaka ci kanam lañ leen daan leen loxo xamaguñ kañ leen leen di bàyyi yéen ndax loolu day wàññi dara ci seen ardeur ak li nga xam ne moom mooy taxawaay bi ngeen war a am ndax yéen a ngi waajal dara. amut lenn lu mu ciy wàññi ndax ñi nga xamante ni dañuy xeex te yàlla tax pour euh, les intérêts du peuple ñooñu xam nañ ni ci réew yu ñu nekk. Euh, risque loolu risque la bokk na ci risque yi nga xamante ni dañ koy encourir ñoom ñëpp xam nañ ko suba mun na doon Aliou Sané il y a quelques semaines de cela ci aar li ñu bokk j'ai presque dormi dans une cellule de prison ak ñoom Karim Xrum Xax ñooñu donc on s'attend à cela mais le plus important tey mooy li nekk di ñëw ñu ngi jëm ci le 13 incha allah te di ngeen ko gis manifestation keroog bi l'objectif c'était pas de mobiliser les gens mais ñoom kii ñi ko initié l'idée c'était juste de marquer le coup et puis donner un signal fort Nous avons moo donné, seen objectif hmm. seen objectif n'était pas que Gangor nous top leen palais waaye le 13 hmm. le 13, jëm hmm. c'est un appel à la mobilisation contre euh, augmentation prix électricité bi ce li ci war yëpp dinañ ci def pour que sénégalais yi yëpp ñu ñëw bu mais Alune allo oui. waaw euh, yokkute courant gi moo taxoon Guy Marius Sagna ak ay ñoñam génn wàcc ci tali bi mhm. mais yokkute courant bu ñu ko waxee sénégalais yëpp ñoom la soxal. Mhm. ndax foogoon ni marché bii marché pacifique la naam waaye ndax foogoon yu mel nii acte yu mel nii boo koy posé war nga dem concerté wu ak toutes les li ñuy wax euh, li parti yëpp bi na nekk ñoo xam ne ñoo nekk ci surtout ci askan wi. nga wax ak ñom organiser ko kon yeen ni ngeen fas organiser wo ni japp ko le 13 est-ce que doon na loo xam dañ ko waron def ni ala at. non je veux dire ñoom euh, acte bi ñu posé gis nañu stratégie bi ci nek lef nañ ko waye le 13 bi ñu jëm ni y a y a une préparation bi nek en cours amna ay réunion yu am ay rencontres yu am ay syndicats. Mm. ak ay syndicats yi nga xamanteni ay centrales syndicales. Euh, et puis avec plusieurs organisations parce que le fait que tay ma nek ci King FM. Hmm. ak les li am en terme de impact bi sen Radio bi am. Hmm. Euh, audience am. Hmm. donc day participer ci ci sénégalais yi de l'heure et la nécessité quand même de taxaw ci mbir est-ce que nag euh, mhm. vous avez en fait c'est une émission du ci lépp ci jàll mais aujourd'hui vous parlez de cette problématique là parce que elle est importante pour le peuple exactement ci mhm. processus boobu la nek dinañ ko gëna yaatal dinañ ko gëna yaatal di ngeen gis suba dina am conférence de presse dina am leneen ak leneen pour que ñëpp ñu jot ci képp ki nga xamante ni jàpp na ni euh, ndogal bi du yoon et que ñoom kii Marius Sagna bi ñu jàpp ne leen ci kaso bi du dëgg du yoon Euh, ñu mën a am loolu la foofu laa la bëggoon indi alin dama la bëggoon laaj ndax Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal waruñu woon def concertation organiser li nga xam ne comme yéen ni ngeen di dérouler nii oo ñi ci ci conférence de presse annoncé wu yëglu bu ko defee askan wi yëpp mën a ñëw jàpp ci combat bi xam ne combat bi c'est un combat de tout un peuple maanaam euh, yàkkamti bu ñu nemmeeku ci marche bi nga xam ni moom la Guy Marius Sagna def ak ñi mu àndal est-ce que mënuñu ko woon organiser comme yéen façon bi ngeen ko defee ngir waaj la 13 incha allah. gis nga nag soxna euh, en fait mooy loolu dama ciy dellu si waat waxaat ko. Mhm. Mhm. frappe France dégage fépp ci monde bi ñun ñi nga xamante dañuy yëngu ci mouvement sociaux yi ak activisme dans le monde Afrique euh, stratégie da stratégie yi dafa bëri mm. stratégie yi dafa bëri stratégie bu ci nekk bi ñuy adopté day adossé wu ci benn objectif bi ñuy am mm. naam sax ñoom gii lii waxoon nañ ko yenn médias yi waxoon nañ ko mais ñoom seen objectif c'était pas de mobiliser mm. seen objectif c'était de créer un déclic et je pense que loolu réussir nañ ko exactement nii toute la presse en parle il y a un déclic donc toute la presse en parle maa ngi King FM. maa RFM matin démb fait combien de plateaux avec ak centrales syndicales nous qui mobilisons les citoyens ils ont atteint leur objectif Les kay ils mhm. ne pas passer à une autre échelle celle de la mobilisation Vraiment, dites vraiment sénégalais ils pensent qu'ils mhm. en ont marre vraiment de cette hausse des factures euh, de, la facture du coût de l'électricité On mhm. qu'on leur donne l'opinion de, l'opportunité de pouvoir s'exprimer Dans exemple Gaston Madera je pense que c'est une groupe la doit un Gaston mais il y a il y a quelques jours dafa fësal ay facture d'électricité mhm. trois ñu mu wane en quelques mois nan la jàllee de 74 mille à plus de 200 cent mille mhm. te loolu yokkute bi ñëwagu ci sax mhm. te c'est un cadre mu metti ci moom moom mun nañ la sax cadre la am na yenn yenn moyens mais même ci moom dafa metti vous dee ci moom la metti sénégalais lambda bi sénégalais lambda bi n'a naka lay def mm. et encore te gagner lui ci gagnes grave garaaw le Sénégalais lambda va payer pour la malgouvernance de ceux qui nous dirigent. Mhm. Mhm. tey jii la la société nationale sénégalaise, Nous sommes la normalement masse salariale 30% des charges la war donne. Il Nous explosé ko ñu à 69%. Mhm. mais est-ce que le Sénégalais est encore à war l'autre chose moi, c'est que le Macky Sall bi mu il y a 19 rapports ay corps contrôle état yu mhm. nek ci kaw table am ak ci bureau juge mhm. c'est-à-dire par exemple le ci muju rek rapport à bi mhm. on te dit que le ministre de l'agriculture dafa facturer Sénégal yi ben à 11 000 francs le chèvre à 116 000. Nous ñu le directeur de RTS réparation auto 66 millions

dañu koy tuer dans l'œuf manam lo xamné à long terme euh, du du du du wéy euh, comme ni nga xamné non la société civile bi lajjee yeen yeen lan ngeen wara éviter lo xamné société civile bi en tout cas def nako ngir bagn euh, tomber tomber dans le piège premièrement suñu maître mot moy union l'union des forces c'est très important les forces yu ñëw nit ñuy naan wooye lu tax ñuy ñëw initier yéen ngeen ciy topp lu tax yéen ngeen di topp lu tax Aliou Sané bu yaan amar moo ci feñ diw feeñu ci ces choses là yi nga xamante ni suñuy grand frère u société civile erreur yooyu la ñu defoon nekk ci ay problème wu nit ay kan moo war a jiite tel dynamique ou pas kii bu initier bu dee man fësuma ci du ma ci bokk parce que du man maa ko jiite loolu noonu ñun on a bien appris de ça et il faut que loolu ñu moytu ko mhm. bu amee lu taxaw comme lu mel ni électricité ñun ñëpp ñu doon benn bu dee mo ci wara wax ñu jox ko cadeau gi mu wax ñepp rangé wu Aliou Sané mo wara wax ñu jox ko cadeau unité bobu c'est important. Mhm. parce que da ngay xol suñu chef d'état africain par exemple troisième mandat bu ko ki yëkëté keneen yëkëti ko keneen yëkëti ko. Mhm. parce que ils se parlent entre eux ils ont un modus operandi. et il mhm. faut que peuple yi lolu nonu ñu mën ci jang ñu xamni il faut que peuple yi au-delà du Sénégal sax yenn question panafricaine yi il faut que peuple africain yi nous menons TNT. téyante de moo waral tey ñun si on a aidé les les Guinéens à ce que nous amal une manifestation mm-hmm. contre le troisième mandat c'est le monde qui qui qui évolue comme ça c'est l'Afrique qui évolue comme ça et surtout Afrique Nous ñi une ci xel mais dafa am ay dynamique avec les mouvements citoyens là yi mm-hmm. man par exemple il y a quelques jours Man, ngi jóge ba États-Unis mm-hmm. dem ay mouvements yi fa nekk ñu en tant que ñun ay dynamique africaine dem dans des universités mondiales Columbia les américains naka la jeunesse africaine à travers nos mouvements frappent yana marat yoyu mhm. faire bouger les lignes c'est pas acquis c'est très difficile du mhm. suñuy contexte mhm. compliqué où la dictature est là où beaucoup de choses sont là gis ils en sont victimes mais c'est pas une raison de lâcher il faut pousser il faut que ñu àndi ci ak suñu askan ak suñu peuple voilà c'est ça le message que j'ai à donner Alune pour mhm. jeexal rek ma laaj la ci actualité <laughs> rapport ARMP am na ñu mu épinglé. Hmm. ba njiital réew mi génn def sorti daal na dinañ tirer les choses au clair. Mhm. ba génne sa slogan bi génne waat ko ne tolérance zéro nag nga ko gisee. soxna si. Hmm? Euh, njiitu réew mi moom moo fi taxawoon ay jamono balaa moo ñu ko jox réew mi mu ne moom du ma xaatim décret buy nommé frère am mhm. Alioune ci euh, ci une responsabilité au sommet de l'État loolu amna, est-ce que final est-ce que lolo, est-ce que est-ce que lolo, lolo, fumu fu mu -hmm. Mm-hmm. Am nga Macky Sall néna duma du ma mës a tàbb -hmm.

voilà jàmbaar Aliou ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax ci ni nga àndoon ak ñun ci tey ci suba si euh, sujet yi ñu waxtaanee euh, daanaka bu ne sax xaw nañ cee cof tuuti. Mhm. mais ñu ngi lay gërëm bu baax et puis on te souhaite de une bonne journée. jërëjëf jërëjëf may fàttaliwaat ni moom euh, mi ngi bokk ci mouvement bu ñu naan Y'en a marre ni ngeen ko waxee léegi di taxaw askan wi nag à chaque fois bu ñuy mbir moo xam ne dal na suñu kaw amee ñu taxaw ñoom ne dañuy défendre askan wi ci seen façon bi nga xam ne ci lañ koy defee ma jëkk bi ñu waxtaanee euh, di euh, mbirum Guy Marius Sagna mi nga xam ne euh, yëg nañu ni démb ci guddi ak ay ñooñam ñi mu àndaloon ci marche boobu fanaan nañu rëbës. Mhm. seen guddi gu njëkk le temps de marquer une pause musicale ñu ñëw nag ci beneen